60 jours 60 vidéos jour 9 sama gars yi bu ni jeu rek moo la tax a jóg choisir PC gamer ou la console de jeu et pourtant tu laaj boobu nañ ko laaj maître geek. Assalamu sama gars yi man la maître geek question Bobo, luñ ma yag di poser Ce li ma conseiller toujours en fonction de ce budget Vous faites ni budget bi non, noonu la console mais vous fekkee ni ce budget mën na la ko permettre le PC gamer ndaxte expérience de jeu bi ci foofu lay Vous a développé bu ni ci côté console mu nekk xbox wala playstation dañuy jël jeu bi ñu calibrer ko si console bi ba nga xamanteni ni day daw sans aucun problème mais loolu mën na arranger pro gamer yi ndax duñu am benn contrôle si seen fps alors que gamer day am flexibilité bu rëy ci côté réglage mën nga adapter say fps sa puissance processeur wala sa puissance carte graphique yaa xam nan ngay régler say setting pour nga am qualité de jeu bi nga xamanteni moo gën optimal moo taxit ñoom PC gamer mo leni arranger même bu fekkee ni mo gëna cher. sama gars même bu fekkee ni PC gamer mo gëna cher mom ngay gëna a gaaw rentabiliser parce que jeux yi ñoo gën moins cher et ñun ñëpp dañ koy craquer. te bul faté abonné